waaw oustaz ñëw ci ci jeeg ju bon ji rek kii de nee na euh, dafa gis ndaw soo xam ne dafay sëy jëkkëram feebar am problème genre AVC moom euh, maanaam day toroxal jëkkër ji ci biir feebar bi bu guddi jotee dina sangu def la war yëpp mais day lala jëkkër ji bu tëdd ci suuf moomu tëdd ci kaw di wax ak ay faram mu ngi ci biir sëy waaye dafa mel ni mu ngi jaalo waaw euh, Baye Assane Bam Bam su ma déggee sa wax mooy koo xam ni dafa ne ci biir néegu sëyam uh-huh. yàlla dogal jëkkëram feebar dab ko bu ñuy wax AVC bu ko AVC bi dalee mel na ni ndaw si guddi day sanca ba jekk ci li nga wax uh-huh. dafa kanamam ba mu baax di woo ay faram toog ci dëgg la lam la la jëkkër ci suuf toog ci digg lalam bam bi li ñuy waxtaan nii lii mu laaj nii lii mu posé wu nii te ko ci taabal ji Modou euh, euh, Baye Assane dañu gëm ne lu am la ci Sénégal am na am na jigéen ñoo xam ne bam bi képp ku leen takk ñàkk nga te sa sag jeex na te sa sutura dina xawee ko mm-hmm. bam bi am na ñoo xam ne bu ñuy sëy ngir yàllaa tax ñuy sëy dañuy sëyeeg jom asal di ful la di sëyeeg diine di sëy Assane ngir xam ni ñoom ak lu mën a xew Assane doy lu baax la xolo ak lu lu mën a xew loo am doole doole doole bis dina jot nga ñàkk te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na alqanaatu maalun laa yunfad yonent bi nee na doylu mooy alal bu dul jeex sa jëkkër AVC aka bari ci kër yi jamono ji góor ñi bari AVC nag fañ doon liggéeyee liggéeyatuñ fa ana seen yaay yi déggoon ah ana seen yaay seen yaay yaa seen seen yaa waaye nga am sa soxna xoola asan bi gën a doy waar fay bàyyi nga mel ni xar mu nekk ci mbaar dégg li ma lay wax dañ la fay bàyyi nga mel ni xar mu nekk ci mbaar asan <laughs> maa ngi wax lu am solo dootuñu sawar ci di la toppatoo fàtte nañu ni démb ak barki démb yaa doon joxe xaalis ci kër gi moom moomu tey su mësaan a feebar yaay génne sa xaalis yóbbu hôpital sa njaboot nga leen di jàppale baam bi AVC dafa metti nga xëy xëy xëy yow góor daan mën am doole ji am kàttan gi du doxee nu mu la neexee nga xëy xëy baam bi AVC sa jabar abandonné la ci biir kër gi. asan kii nan lay dundee kii naka lay nekkee te lii mu laaj dafa doon loo xam ni phénomène bu am ci Sénégal boo xam ne dañ koy dund fam yaa ngi koy dund man xam naa ji ku koy dund. man xam naa ni ku koy dund waaye jabaram ak ay jàmbaar bal dellul ginnaaw tey la gën a doon jàmbaar tey la gën a jege jëkkëram tey la gën a bàyyi xel jëkkëram mais bi doy waar di mooy ki dem ba seexlu boroom këram mm. kon loolu asan moom am na ñoo xam ne dañuy mujj seexlu la ñun ñu di toile te wax de ah nañu ñaan yàlla ñu ñaan yàlla asan dajeeg ay soxna yu baax barki Seydina Muhammad góor gu ci dajewut ak soxna bu baax hmm. yeneen bi boo gisee mu ni ida ataakum man tar daw na diinu waxul ko fa zawijuhu ak lii moo tax mm-hmm. parce que jigéen tamit day tële yal na yàlla may góor yi baax dëgg la am na koo xamante ne waxuma la feebar wala abc mais ñoxor rajo bi jàppatul mali rek jabaram mënul muñalatu ko waaw sëyalatu ko ñaanu baa tamit nga def jaambaa jombe gis nga bu bon yaa ngi ci dëkk bi de fees de bu gën a ñaaw nga ne bii la xam nga yal na yàlla may itam ni jigéen war a baaxee yal na fa góor baaxee itam parce que feebar moom ñaari parti yi la jigéen dina tële góor dina tële man gis naa góor goo xam tam jabaram dafa feebar mënatul mu ne ko fa ñukk ni yàqu ñaqare taxal ko jabar pare génne ko néegam teg ko ca loolu kay waaw mais dëgg fa yàlla mais terre na am na benn ndaw soo xam ne am na benn waaju koy dimbale di ko defal ay cotisation ñu bëri ñu ngi koy gis si internet bi te bopp bi xawal naqari bëgguma tudd turam waaw ba mu amee problème xel am ay njabootam noonu la ko jëkkër ji génnee ba tey jëkkër ji lintu faale ko nit ñi lay cotisé di ko dimbale xam nga Assane xam nga Assane mbaam bi li gën a doy waar yow si jëkkër dafa AVC feebar déggoo li nga wax Didi wàccee ko lal bi la def lal lal bi nga am jëkkëram moom ABC moo ko def mën ngaa tëdd si suuf lal suuf wàccee ko lal bi ah. ba pare yow sangu ba jekk asan toog ca kaw di woo sa ay far sa borom kër di ko dégg kii bu dee yaa ko rey moo ko rey asan góor dafa fiir xam nga li may wax bu baax góor foowantuwul ci walla kafantuwu ci góor ak jigéen bokk góor dafa fiir calculam bari dimension yu mën a dugg bari li ci am solo daal mooy njàpp jaam gi bu desee ndaw si waaw waaw ndaw si li ma ne njëkk wax baam mooy mu ngi def loo xam ni lu xaraam la ndax doo am jëkkër ba pare di njaaloo mm, muy benn beneen bi mooy fecc na kóllëre matul kóllëre digganteem ak boroom këram ndax jigéen lu mën a xew sa boroom kër bu tawatee feebar am na dimension boo ci mën a taxawee boo xam ni yàlla dina ko gërëm yonent bi aleyhi salaatu wa salaam dina ko gërëm nga am ci woy wudul fay. léegi bu demee dañ ko ciy topp dara. Hmm? demee dañ ko ciy topp dara. su demee su bàyyee dem dañ ko ciy topp dara. su bàyyee jëkkër ji mu tas dem waaw mu tas dem dañ ko ciy topp dara. Ah, ndaw si waaw non déet am na foo xam ne boo ko tollee ba nar a may mooy mooy. waaw laataa jëkkër ji di feebar lan la la la sariya àtte. may la boobu laata am muy feebar ci biir feebar bi. waa biir feebar waa est rafet yow rafetlu nga loolu bu mu rafet day diine ngay yow xoolal rafet waxal ci diine damay ñëw ci lu rafet ba pare waaw dee man diine laa laaj parce que man rafet man xam naa rafet bu rafetul waaw kay mais ma ci diine bi laaj ba xam topp nañ ko dara wala toppuñ ko dara diine dafa wax ni bépp jigéen joo xam taslu nga ci sa sëy ci loo xam ne bi nga koy tas bi xayrima baax amul cause bu war a mën a tax ànd nga ak waa ji benn attention attention déglul boo boo cause télé ak ki nga xam ne dafa feebar ak a mën a wér attention attention Assane attention moo di question attention waxuma loolu de man ak a mën a wér mën naa wér mën naa wér xaaral wax la moom nag am na droit su ko neexee mun damay ñaan baat loolu rek laa wax man est-ce que dañ ko ciy topp dara bu ñaan baate ñu may ko baat mu dem te du ko ci topp dara déet lu ñu ko ciy toppee waaye yàlla mi ngi fi nag asan waaye nag yàlla mi xam ndax ngor nga ko defee xam nga non wala message message rek xaar xaar xam nga waaw dañ ne dañ ne voilà dañ ne Oustaz teguñ ko dañ ko ne wax diine. dama diine loolu laa ma ban laay wax. Ah. tey bu nekk lu rafet lu ñaaw rek. dañuy ànd na da ngaa nekk sa sa jëkkër. Mm-hmm. muy góor bi muy jigéen. Mm-hmm. nga dem keneen am lu ko ci mm-hmm. ba comme ne ku ci dagg tamit est diine topp na ko dara. léegi nag mu ñëw ma leer loolu baam mook télé bi ñoo yem am nga droit nga ñaan baat dem. waaw loolu rek laa am nga droit ñaan baat nga dem. waaye benn instant mooy gën nga toog foofu si dem di mooy. fuuf moo tax sariya may la nga ñaan baat dem. waaw méttiwul. set certes salte na diine euh, xool lu salte ak lu hmm. araam hmm. mais loolu jigéen bu ko def itam da ngaa yées rek ah, waaye nit a ngi toog wallahi al azim nit a ngi toog nit a ngi toog Oustaz jëkkëram feebar wala mënatul wala yàlla teg ko natu nga ne da ngay ñaan baat ngir mën a too muñ wala mën a koo suturaal waaye kaam wax la feebar sëra naak day jigéen joo fekk nag ci télé laa toog di wax jigéen joo fekk mu def loolu paawu démbam wala xale bu góoru tey wala jëkkëru tey ku mun di ko doon billaahi wallaay tallaay feebar du roy waaja en général borom day wér nekk ci donkaa sigéem nga bëgg a ñëwaat mooy war a jigéen daa ko góor nekk di kalangaatoo ko roosaatu chaque minute nga ne sama doom ji daa feebar ordonnance di safal chaque jour nga ne kon ñëw ñàkk jom a bàyyi sa jabar na jabar ji dem da nga mën a wér jigéen bi nga xam ne mu ngi def loolu waaw dafa xaraam mais sa njaan daam xaj na jàpp jàpp xaj na ci ayo ko jox am nga jëkkër di am par wala ngay jaaloo mais dañ lay rey sariya da